fukki fan ak ñeent ci weeru saatunmbar ci atum 1997 fukki fan ak ñeent ci weeru saatunmbar ci atum 2021 ñaar fukki at ak ñeent ba nga xamee ni maam Abdoul Aziz Sy Dabakh wuy ji na boroomam maam Abdoul Aziz Sy Dabakh di woon koo xam ni kii fu mu mësee yëkkati kàddu ñëpp ni gongo moom la ñuy fàttaliku tey jii di ko xam ni kii ba léegi Sénégal ak àdduna wërgal këpp ñu ngi koy jooy ndax taxawaay bu am solo bu mu amoon ci dina lislaam fépp foo xam ne fii safara mës na faa tàkk daal dina koy fay ci réew mi rawatina bitim réew boroom xam-xam bu mag bi nga xamee ni bu muy dem ñu ci bëri ci Sénégal xamuñu ko woon góor ga ca Jaksaaw Dabax nekkoon na citoyen modèle waaye tam nekk koo xam ne kii ku bëggoon réewam la wàccub liggéey bi mu amee ñeent fukki at ak ñett maam Abdou ni ko ndaw yi daan woowee matal na sëkk mission bi nga xamee ni suñu borom joxoon ñuy fàttali ko ba léegi kàddu yi nga xamee ni daan na di ko yëkkati di loo xam ne lii ba léegi mi ngi ci xol yi mu ñëw ci bopp xilaafa gi ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru mars ci atum 1957 ginnaaw bu nga xamee ni magam yi di sëriñ Babacar Sy ak El Hadj Mouhamadou Mansour Sy Balxawmi daal dinañoo wàcc liggéey lu toll ci ñeent fukki at toog na ko ci jal bi nekk ci xalifa njabootu Seydi Hadj Malick Sy fàttaliku goo xam ne gii ba léegi mi ngi ci xel yi réewum Sénégal rawatina àddina warngal këpp di ko ko jagleel va Tivaouane Babacar Sow dañ ca jokkoo ak yéen pour Sud FM fukki fan ak ñeent ci weeru Saatumbar ci atum 1997 fukki ak ñeent ci weeru Saatumbar ci atum 2021 ñaar fukki at ak ñeent ba nga xamee ni maam Abdoul Aziz Sy Dabakh wuy ji na boroomam maam Abdoul Aziz Sy Dabakh di woon koo xam ni kii fu mu mësee yëkkati kàddu ñëpp ni gongo moom la ñuy fàttaliku tey jii di koo xam ni kii ba léegi Sénégal ak àdduna wërngal këpp ñu ngi koy jooy ndax taxawaay bu am solo bu mu amoon ci diine lislaam fépp foo xam ne fii safara mës na faa tàkk daal dina koy fay ci réew mi rawatina bitim réew borom xam-xam bu mag bi nga xamee ni bu muy dem ñu ci bëri ci Sénégal xamuñu ko woon góor ga ca Jaksaaw Dabax nekkoon na citoyen modèle waaye tam nekk ko xam ne kii ku bëggoon réewam la wàccub liggéey bi mu amee ñeent fukki at ak ñett maam Abdou ñu ko ndaw yi daan woowee matal na sëkk mission bi nga xamee ni suñu boroom moom la ko joxoon ñuy fàttali ko ba léegi kàddu yi nga xamee ni daan na woy di ko yëkkati di loo xam ne lii ba léegi mi ngi ci xol yi قلوبنا سواء دار الحبيب قلوبنا سواء mu ñëw ci bopp xilaafa gi ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru mars ci atum 1957 ginnaaw bu nga xamee ni magam yi di sëriñ Babacar Sy ak El Hadj Mouhamadou Mansour Sy Balxawmi daal dinañoo wàcc liggéey lu toll ci ñeent fukki at toog na ko ci jal bi nekk ci xalifa njabootu Seydi Hadj si Sy fàttaliku goo xam ne gii ba léegi mu ngi ci xel yi réewum senegal rawatina àddina warngal këpp di ko ko jagleel Tivaouane Babacar Sow dañu ca jokkoo ak yéen pour Sud FM